yoo xam ne li sëñ Tuubaa wax ne ci la ab murid di dëggale Hizbut Tarqiyyah fas yéene teg itteem euh, fi sëñ Yuusu tegoon nag yitte ji rëy na lool du Amérique du Espagne du Afrique du Sud du Canada du France du Côte d'Ivoire du Mali du Brésil du benn ci réew yi ma lim ak réew yu ma limul ay membres Hizbut Tarqiyyah passé nañu fa ñëw ngir dëggal kàddoom yooyu ak pas-pasam boobu ak fekkee ziar bi loolu nag yaakaar naa ni mën naa maye lu ne ci sëñ tubaa kon nga dikkal ñu rek ci lenn ci njariñ yoo xam ne siyaari sëñ tubaa ak jox ko àddiyee mën na koo jural ab taalib euh, jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine jërëjëf sama nijaay sëñ Fallou Galas euh, loolu bu ñu dellu woon ci waxi sëriñ bi rek nga xam ne mooy delluwaay bi gën a wóor fa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara euh, loolu defe naa moo gën a rëy lépp képp koo xam ne liggéeyal na ma te defe naa ma joxe at yi ci la bokk ndax mooy jëf joo xam ne ak jaamu yàlla la te joxe ci yoonu yàlla ci ak jaamu yàlla bokk képp koo xam ne liggéeyal na ma wala mu ziyaare ma fa najjihi na ko muccal waxfir lahu aw zaara waaye nanga nga ko jéggal ay rëcc-rëccam kon day mel ni ak mucc ak tàggoo ki bakkaar mi ngi ci siyaare sëñ bi te loolu am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñëwee ci sëñ bi di ko siyaare loolu lañ ko wax xam nga alfawzul azim mooy ngërëmul xam nga àjjana mën nga caa tàbbi te doo am ngërëmul yàlla waaye alfawzul azim mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla loolu nag moom la mag ñi doon sakku bu ñëwee ci sëñ bi bu ñu ko dee jox seen addi ak seenu siyaare loolu la ñuy gaaral am na ci koo xam ne bi mu ñëwee dane min ni salaamun ka yaaquutin awi durari bal faaqa durran wa ka yaaquutu kal xamar ila allati zaara abdallahi xaadimahu sayqi malaasi qiyaasi man qada watari haza ziyaaratuna yaa rawdata alxutaba yaa xudwata alulama yaa malja albasar kon kii xam-xamam fees na waaye ba mu ñëwee dane ko nag noo ngi ñëw ngir siyaare si la waaye ki la siyaare si ban berde laa bëgg xiraaya fawzun wa ridwanun wa takrimatun wa aafiyati daarayni looloo ma tax a jóg kon ndakee siyaare dana jur ngërëmul yàlla dana jur tedd nga dana jur mucc dana jur aafiya àdduna ak àllaaxira ga ñu jëm te mboolem ku ma sa jóg siyaare seriñ bi loola gaar na la mu mel ni kon jëmmi njàngalin wa ca nekk ak doxin wu sell wa ca nekk mooy tegtale ne Serigne Touba moom ci boppam at mu jot dafa warlu woon yees lu joxe addiya te moom addiyam mi ngi ko jëme woon ci ay am daa ndax loolu moom la mënoon a def moo tax waxtu wu ne ala man alayya walastu sadix lahu kulla aamin hadaya madix xam ne ala kulla aamin hadaya madix lil mustafa alkarimi fi kulli sana alayya amdaaxun turaab mustaxsana kon loolu dafa wone ne day warlul ci boppam at mu jot mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay addiye addiyem yooyu nag te mu nekk am daa yi lam ko jural moom ak lam ca yaakaar benn murit buy joxe addiye bu nekk sañ nga ko caa yaakaar wa binti daayika arju haahuna wa gada fawzan wa ribhan wa ridwanan yuqarribuni wal amnu min kulli cheyin dimnahu darar wa sitru wa nasru fi ahli wa fi watani loolu yaakaariwu ko ci lenn lu mooy lim jël di ko jëme ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ko liggéeyale kon dana jur ngërëmul yàlla jëm ak tonewu ndax sëñ Tuubaa nee na ki daqat ki gën a am bénéfice mooy ki jël bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa def ko muy ak yaxantoom ndax rabiha su tijaratin xatta jarra bi xobbi shafiin ada al fajara sëñ Tuubaa nag nii nit ñiy def deew di ñëw lu ko waral almashar yi Cheikh Ibrahima Jóob fax ne ahlul madinati ma ahlul ijaasi bi la nukri ataw li suqya bi faydikal jaari kama ataaka onaasu shaami ma onaasu misra wal kullu baaxa daaru bi daar ñépp jaay seen kër yaag seen alal yi te bëlëf dëlëf yi ñuy def ñu ne tudd nga réew yëpp Amérique France ak réew yëpp noonu la naar yi waxee na noonu la àdduna Makka ak Madina ak noonu lañ daan guruboo wuti Sëñ Tuubaa tasiiru ilayhi naas sharqan wa maghriba wa min raakibin barran wa min raakibin bahra min achaami jaatu wufudu wa makkata wa min taybatin jaau wa jaatu misra daam fu mas a nekk nu fekk ko fa penkook saw da daan xët di jëm si ci sëñ Touba ngir di jël seen alal di ko jox te sëñ Touba dafa neex a boole dafa am ci mag ñi ku ñëw na ko lu ma julli lu ma woor lu ma liggéey lu ma am jébbal naa la ko sëñ Touba laaj mag ñi ne leen xanaa lii ku ko def fàkku nga mooy jeexal nga ñu ne ko waaw mu ne waaye ni mu def ma wax leen ni mu mel day mel ni borom kopp bu ñëw na borom géej nañu boole boo yore kopp ndox booleeg borom géej nag duutoo jeexal ndox duutoo manqué ndox doo tiit ci rébéni yu tëj doo jaaxle ci yàlla su tawul kon ku jël sa alal jox ko Serigne tuuba rawale nga sa bopp waaye rawale nga sa njaboot tam mat ko nag mënee suta jox Serigne Touba ci ma ju tol ba jot ko moom ni mu joxe wasilaam ma muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mënee su koo jox ndax ñun bàyyi nga ci kër ga njaboot bàyyi nga ci alal waaye Sëñ Tuubaa moom bi muy jox yonante bi dana jumlatu maali wal midaad wal xalam hadiyatun lil Mustafa baabina juttu lahul yowma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidaya fi l alam xabawtuhu bi nafsi ila xidmati min xululi rams ba feeg may tabbi ci ngeen noppi maa gisati du ma dakkal liggéey bi ma koy liggéeyal kon moom deseetu dara Sëñ Tuubaa léppam nifaali wa ibgai wa fawsi bila anan bi kaw nii xaddiimal Moustapha tatabayyanu kon li ma ci daane la mooy xisbu tarqiya képp ku yàlla dogal nga am yëg-yëg xam nga dañuy wax jamonoy crise sa sëñ Tuubaa moom waxoon na ne wala siwaay yan yi day zaman gis nga ko jiitoo gën a neex sax la jiitu loolu moo dàq li jutta bi tam kii ni war rusuuxi wa hëbtali mawaahibu shuyuuxi wiraasatan minka ilayya lil jinaan wala siwaay yan yi day zaman lu fi waay mën a yor yàlla dala ko mës a dénk jël ko fi fi ne ku ne jamono yi sëñ Tuubaa ñëwagut ku ne am na ku la duubalte da ngay tudd kii ne mooy xutbu nangam wala mooy xawsu nangam wala mooy taaju nangam ba yàgg ñu ne am na ci réew sàngam ku ko raw mais bi sëñ Tuubaa ñëwee ba yor po bi muy folote kenn ku rawagun sañ bi baa nga jege ko amul kon mawaahibu shuyuux yëpp a ngi ko daje te moom bi mu ko yoree wiraasatan la ila yëlal naan maanaam ku xaar ñett yi doo ci jot maanaam ba ëllëg drapeau bi du di jóg ci loxoy Cheikh Ahmadou Bamba te loolu tey jii firndeel na ko waaye nag wala waay yan taxi day ko zaman yëguma kiris xaw ma jamono ju metti xaw ma jamonoy wopp xaw ma jamonoy wér xaw ma jamonoy ñàkk xaw ma jamonoy dee bu ma laajee des na ma jox bu ma santaanee dana jëf ndax laana liyal xulub wal abdaan toxibu na biidaan wa sudaan ki fomm bisam ngir ñàkk na dañoo toll ci jamonoy kiris na fomm naa saa bis wala mënatuma koo woote ñi daan ñëw duñ mën a ñëw wala ki sponsoré du sponsoré wala ki may jàppale bokkul ak ki jëfal sëñ bi ba noppi diggante koor geeg léegi fukki fan ci lay war toll ngeen boole nañ boole lañ am ca kër yaag lañ moom jébbalaat ko Serigne Touba murid yi nañ jël seen bët teg ko ci ñii nu war a roy bañ a roy niveau murid yeeg nga xam ne murid yi effectivement la ne ci réseaux sociaux yi di coow du ñu roy téef ku bëgg a roy royal bu tarxiya kenn du seen ku isbu tarxiya di jaawale kii kum doona foo bokk ak ndax murid ngaak noon nangam déedéet déedéet boo gisee jëmmam xam ne kii murid la boo jaxasoog moom xam ne murid la bu mbooloo ma dajee ñu ne dañuy yeesalaat jébbal Serigne Touba it nga xam ne murid lañ kon benn murid bu ne am na ku mën a roy te olof Njaay dafay wax ne ku la dàq jotu la lu for sànni la ku la dàq jotu la lum for sànni la koo jiitu jiitu nga ko te mënatu laa jot te lii jëf la joo xam ne màndarga mu leer la kon nañ jàpp ci lii ci sëñ Tuubaa te téye ko te bañ caa déng-déng noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di sant nun sëñ Tuubaa lañ bëgg nun ñëpp dama daa wax waxtu wu ne ne am nañ kuréel yooyu ak jëmm yooyu ci yoon wii man dañu maa neex ndax dañoo bokk ci liy feeñal ñàkk moroomu sëñ Tuuba xam nga bu nekkee ci mbedd yi di wër naan sëñ Tuuba amul moroom sëñ Tuuba amul moroom bu la benn laaj waaye doon laaj lu mu rawee bu la neexoo gestu def li te kii niy jébbal addiye ji di Cheikh Mamadul Muntaqa ku ne xam na ne bu dee joxe addiye ak liggéeyal sëñ Tuuba ak cër kenn mënta jot Cheikh Mamadul Muntaqa fi ne vitesse su waay di daw lu sa vitesse xiir xiir mën a góos seen Cheikh Mamadul Muntaqa ndax moom ñun ñi koy jox addiye moom ñun ñi koy jox addiye nangu nañ ne sëñ Muntaqa nu gën fopp moo nu raw fop waaye moom ñam doon jox addiye dañoo bokk ci señ Touba kii sëñ Touba jur wéy juróom kii sëñ Touba jur wéyam yooyu juróom muy takk kaalaam gis ngeen image yi ci kanam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu masaa toog ci kanam Cheikh Sidi Muxtaar da ngay jàpp ne kii moom ku mu war a doon fekk boobu mi ngi fagg aw yoon di wane aw yoon moo tax kon ginnaaw nee na ku dem ma dem ku demul ma dem bu sëñ Muntaxa fëxee ku ca topp bul gestu kuy dàqob saay-saay nag te lu mu taqal nga faxas ci sa mbubb bu yàggee doo ko jot te dana la raw te sa mbubb dana gën a taq kon na dem ca kanam bañ a gestu wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf ñu koy sant bu baax sëñ Gana Messere kon yaakaar naa dañuy delloo sëñ Papa Sën Diouf euh, mu jëm ci kuréel bi nga xamante ni mooy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Daara Touba ñu war a nag ci njàngum xasida mi incha allah ci kanam bu ñu daanelee dinañu dellu siwaat waat ñi ngi seen du ko mel ni sëñ Bousra euh, Samb mu agsi ànd ak sëñ Ahmadou Touré ak ñi nga xamante ni ñu leen di séntu lépp rek jëm ci fàttaliku ndono li ak dundal ko kon ñu jox sëñ Assane